ay fan des ci màggal gi taalibe yi ñu fekk ca Medina di àddu ci niñ koy waajalee ak nan lañ koy dundee ak njëg yi seer yiñ fi nemmeeku. mais dara dundi moom seer na mais yàlla baax na xam nga ñu yor wàllum financement bi moom xañ na bu màggal gi jub see dañ ci dugal seen loxo bu baax ba ba jéem a wàññi affaire yi ndax màggal moom ku ko ku wax màggal xam ni day bari ay ay ñam quoi ndax màggal berne lañu wax. waaw kon nag wala dund bu seer bi ñoom seen dañuy ñaan yàlla daal état bi nga xam ne moo fi nekk mu jàpp si bu baax a baax bu ko defee mu yom mu yolomal dund gi bu ko defee ñëpp mën cee gis seen bopp. fàttewuñu àddu itamit ci matuwaay yi ñu jël ci période nawet bi ba rek bañ a jànkuwanteel ay jafe-jafe. ah mais comme niñ koy defee rek chaque année chaque année xam nga Baye Fall Murit moom ñoom dañuy waajal seen bopp. waaw dañu organiser ñoom orgi yàlla da leen defaral siiru boobu mooy dañu organiser seen lépp euh, du ñu xaar kenn màggal bu jeexee rek tàmbali nañu euh, jëmaat màggalu déwén waaw. réew mi toll ci jamono ju doy waar rawatina ci wàllum kaaraange ànd si ak sérénité ñu ngi dalal xel yi ci pàcc googu. non ñun moom naa la xaw yaa ñun moom màggal gi moom ginnaaw coronavirus moo ëpp doole lii te taxutoon ñu foom suñu màggal. kon moom màggal gi leneen mënuñu koo fombal wax dëgg yàlla ndax santaane sëñ bi la sëñ bi dañu nañ dem santale ko yàlla kon c'est normal ñu dem bégal maam nit ñi fekk suñu xam nga ay tuub ay saa tubaale di ñu xamal ni rek condition yi ñu dundee yokkute njëg yi doon na ay condition yi métti di ñaawlu li ni mel ndax jàpp nañ ni waajtaay événement ba waajtaay événement lay am di ci ñaax nguur gi mu réglé problème boobu